yow ci sa bopp yaa yaay joxe ñaan nu ñaan nga sànni kat. monsieur le président Hadji Macky Sall ci turu famille Sidi Mouhamadul Amin Niass bi yëpp Cheikh Mouhamadul Hafiz ak ay rakam ak ay tàntam ak ci turu personnelu Walfadjri bi yëpp Abdourahmane Camara jiite leen. ak ci turu famille Maam El Hadj Abdoulaye Niass bu tedd bi nekk kawlax Cheikh Ahmed Tidiane al Khalifa ca Léona Niassène Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim ca Medina Baye ci seen tur ñoom ñoo ñëpp laa lay delloo nuyoo bu tedd bi nga ñu nuyoo ci kër ku tedd kii naan nuyoo bi nga ñu nuyoo nag rafet na rafet boo xam ne lottu nañ ci delloo la bu mel ni moom wala bu ko na rafet te ñaar yooyu rek la ñu alxuraan sant wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw gannaaw delloo la nuyoo ba pare ci seen tur ñoom ñett ñooñu ma tudd ñépp ñu ngi lay nuyuwaat yow ci sa bopp di la jaal njaal mi nga xam ne yëkkati nga ni ko di ñu ko def ñun famille bi yëpp ñu ngi delloo di la jaal ndax Seydi Mouhamadul Amine ñas nekkul ne famille rek ñoo ko ñàkk nekkul ne usra abdalawi rek ñoo ko ñàkk waaye senegal gi yëpp a ko ñàkk te yow la yàlla dogal ngay njiital Sénégal lépp kon gannaaw bi ñu ko jaalee ñun ñëpp ñun ñëpp tamit wëlbatikuwaat nañ ñëw di la ko jaal moom jaal ko tamit àdduna bi yëpp daanaka génn ak àdduna ak Seydi Mouhamadul Amine ñas dafa ñuy fàttali benn waxu waykat dafa ne woon wa mawtu xaysin mawtu shaxsin bi aynihi walakinahu bunyaanu qawmin tahaddama mu ne génn àdduna ak xaysu te mooy génn àdduna ak Sidi Lamine bu doon moom rek mu oyof mais génn àddunaam mu ne bâtiment la bu daanu ci kaw àdduna bi yëpp kon jaal di la sant tamit di la gërëm bi tiis wi dalee ci suñ kaw ba léegi wéetuñu monsieur le ministre Mbacké Sakho ñu nag moom la woon ca morgo ba ñu nag moom la woon ba ni ñu jëlee yoon jëm Kaolack monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye heure bu nekk ñu ngi doon jokkoo ak moom mu jàpp lañu ci lépp naka noonu préfet bu Dakar premier ministre ñëw na fii ñëw na ca morgo ba ñëwoon na ñoom ñaari yoonam yooyu rekk doyoon na yaa nga wëlbatiku tamit ñëwaatal sa bopp kon famille bi yëpp ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay timit ñaanal yàlla yal na yàlla xare ko aljana yàlla yaatal bàmmeelam liñ ko yaakaaral lépp yàlla na ko yàlla defal lu ko ëpp ni nga ko waxee Sidi Mouhamadul Amin sa xarit la sa soppee la jaxasoo ngeen lu bëri kon njaboot gi yëpp ay doomam ñu ngi wëlbatikoon dina ko jaal kon yàlla na yàlla xare ko aljana bi ci des rek ñu def ñaan jàngal ko benn fatiha ak ñetti qul huwallahu tëjee ko ñetti péri salaatul fatiha yéene ko yool bi jërë ngeen jëf yéen ñëpp fu ngeen mun nekk ci àdduna bi jërë ngeen